délégué de quartier bu Ndindi 1 ma len di nuy di len gërëm di len sant ci téway bi ñu fi téw ndax dañu dégg tuuma jo xamanteni ni nakari naqari nanu lool nu bëkko dindi ndax Moustapha Seck mi ko wax wax dëgg da fay ñëw ndindi yagu ndindi té ndindi nun ba président ñëwee di di di wut réew mi ba légui nu and ak mom di jappalé ba gis ci suñu bop té lolé it wa ah, maanaam waxu ko ci ndigal waxu ko ci loo xamante ne nii tuk tukkee na ci kilifa tukkee wut ci sëñ bi tukkee wut ci seef du village bi tukkee wut ci chef du quartier yi sagos boppam la ko defee nu bëgg nag loolu moom nu xam ne président bu ko dégg bum ko déglu buñ ko ko déglul nun noo ngi ci gannaawam di ko jàppale tey di ko jàppale boo lëggee loolu la waa Ndindi gépp bëgg man nag maa fi teewal mag ñi mag ñi nag liñ bëgg mooy ku leen jàppaleel président Macky Sall Moustapha Seck mënu fee dindi lenn Moustapha Seck mënu fee yëngal lenn ndax Moustapha Seck bu ñuy wax ndindi ma nga ca diggante Tindodi ak ndindi kooko fo Tindodi la gën a jage kooko xam nga ne mënut a yëngal ndindi dara waaw man man soxna May Macky mii hmm. ku nekk ci dëkk bi fii xam nga ne maa ngi Macky ba mu commencé réew mi ba léegi May makki rek. du ma ah. du ma saase du ma daw du daay maa ngi taxaw rek du ma ragal. incha allah Macky ca kaw rek ca kaw ca kanam Moustapha Seck mii def nag xëy na moom la concerné ñun concerné wu ñu. ñun daal ñoo ngi ci Macky tey ñoo ngi ci Macky ëllëg. li koy ta li li liñ koy xamal sax mooy dama ne. nag ab sancaan du jiite sancaan du jiite te na xam boppam na xam boppam laal na laalaaka nag ba mu laalee ndindi uh-huh. laal na laalaaka te dana xam ne nag wallaay la dana ko rëcc dëkku ndindi Moustapha Seck dëkku ndindi dëkku ndindi kenn xamu ko te jiite nañu fi yoo xam ne man dama li tax man man maa njëkk a daw man àndoon na ma ak meen juróom-benni weer maa njëkk daw man may Macky maa njëkk a daw ndax xam naa ne Moustapha sekk du koy du ko yëkkati mu ko am Macky Sall du koy daaneel waaye du ko du ko yëkkati. waaye moom ci xam ne lu bëri si moom la ñu jaar lu mel ne financement dem bi am financement yu fu kenn kenn la fi financement wut. kenn la ko fi joxut. Moustapha Seck nag moo leen defal formation benn benn du ma wax du ma wax sax doxu dëgg parce waaye amut kenn ku mu ko fi doxal ah, ah, xëy na ndax ah, ñam xëy na am na ñu ko doxal waaye du du ndindi bii de moom ndindi sëñ Fallou moom du moom moom damaa la xamal ne waa ndindi sëñ Fallou billahi Moustapha Seck dana xam ne réccu li waxam bii dana dana ko côté seer waaw dana ko côté seer génn nga nit ñi mais li mu mën lépp eh, day wax day wax day dama ne dëkk bii dama ne boo fi taxawoon naan kuy sonko sonko kenn xamul kuy sonko. sonko ñun tey laa ama sa dégg tur sonko sonko tey laa ama sa xam li ma daal ñun ñoo ngi ci président Macky Sall. maa dégg ay wax yoo xam ne dafa am ci ndindi am ku wax mu Moustapha Seck ku wax ci turu ndindi ah loolu nag ñu ñu dégg ko mu metti nu lool. ndax Moustapha sek dafa dik fekk ñun fekk suñu dindi dekk ak ñun dik fekk ñu nek APR mu mudik lañ bëgg mu bëgg ko mu dik legi wonu pour ñu and ak mom pour parti bi gëna duggal ñu d'accord mom ci loolu and ak mom kon say su def déclaration di wax dafa wara wax mom waye bu mu ne wa dindi waaw daf ci buy demit dañuy bàyyi ci APR ndax andi wuñu ci woon kon fii dem na dem rek kaddu yooyu nak tooñ na waa Ndindi gépp parce que su doon waxam dafa waroon a wax ci moom rek la concerné dem gi moom rek la concerné nun noo fañ nun mënu ki ci rek